alhamdulilah alkarim silminan ala ishtighali bi furudin wa sunan الحمد لله الكريم ذي المنن bi furudin wa sunan tapis amal nañu ubbi tekk seen place bu bees bi mu nekk ñaareelu place boo xam ne ñi ngi ko ubbi ci Touba Ndam boobaak léegi atum 2011 ñuy amal goggaleeg liggéey tapis rouge ñi ngi ko doon amalee ci teewaayu sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr mi nga xam ne moo yor kàddug yoonu murit ak Serigne Amsatou Mbacke bu ak monsieur le maire bu Touba di Abdou Lahad moom itam ñëwoon na ngir rafetlu liggéey bi nga xam ne jamono ji fas amal ci dëkku sel bi di Touba. ci fànn googee nag ñu yëngu ràññeeku ci lool ba tax na ñu ne googaleeg liggéey dinañu ko lawal ba egsi ci dëkk bu sell bi di tubaa jubluwaay gi nag weesuwul ñi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi le gën a gis seen bopp ci ay jumtukaay yu ngën a mucc ayib. ñun bi ñu defee assemblée générale suñu président directeur général. ñu gis ni que ni nécessité la tapis rouge mu def décentralisation am donc euh, bi ñu xoolee xool nañu un peu partout yeneen dëkk yi mais ñu gis ni que ni Touba euh, non seulement pour liggéeyal Serigne Touba mais aussi euh, gën a jege waa Touba population Touba donc loolu moo waral ñu implanté fi nag showroom boo xamante ne moo gën a mag ci suñu showroom yi depuis tapis rouge bi muy existé depuis en 2011 ba tey. donc ñu implante fi nag showroom boo xamante ne macha allah am na diversité de meubles am na accessibilité selon prix yi Tapis day jaay lu baax lu yomb te lu xéewale ñun nag dañuy def euh, rapport qualité prix donc dañuy xool par rapport client bi li mu bëgg c'est vrai que y un, certain luxe boo fi ñëwee da ngay gis ni waaw lii aw ma njëgam mais boo waxee commercial mu accompagner la wax yow nga gis ni que nii am na diversité am na qualité mais am na prix yoo xamante ne dañ koy def mu abordable accessible à tous tous les ménages client bi ñëw ku ci nekk ak sa budget donc client day ñëw ne man kat lii laa yore mais damaa bëgg di fay dagg-dagg donc loolu ñun ñi nga xamante ne nag ñoo yor euh, administration dañu jël en compte clientèle yi donc nag client day ñëw joxe 50 pour cent du prix donc les autres 50 pour cent tu donnes en deux tranches donc boo defee 25 25 après le solde nag on te livre le matériel tranquillement ñun diversité lañuy def ñun ñi ngi ci chambre à coucher ñi ngi ci accessoire ñi ngi ci luminaire donc dañuy jaay salon dañuy jaay lép loo xamante électroménager dugg nañ ci léegi téléviseur donc tapis rouge ñun dañu am objectif xam ne bi ñuy dugg si chambre à coucher la woon mais au fil du temps besoin yi di gën a yokk donc ñuy dem euh, xam ni que ni client bi bu duggee ci showroom bi war na am possibilité lépp li mu soxla ci këram mu gis ko fi donc d'où la nécessité moo tax à chaque fois on fait des voyages un peu partout xam leen indil li bëgg di leen ko tegal ci table ji à un prix leneen loo xam ne itam mënees na ko cee dolli nekk lu jëm ci wàllug njënd mi am na ak woyefal goo xam ne amal nañ ko ci googaleg woyefal di may clients yi nga xam ne rek ñoo nekkee file tey jëfandikoo ay matériels yu tapis rouge seen ak kóllëre gën a mën a sax ci seen ak diggante yaa ay da di yëngu ci wàllum commercial miin bu baax seen ak liggéey di ci indi kàdduy seede njëkk na fi ubbi place muy maison mère ba mi ngi nekkee ci Touba mu dellu terrain bi 2000 mètres la. ñi nga xam ne dañu dëkk ci dëkk bu sell bi tubarfakalla macha allah comme li ma lay wax rek Touba dañu mën seen nit. ndax dañ ko accueillir tubarfakalla di ñëw di jënd matériel yi matériel yi nag muy matérielu qualité fépp foo xam ne rek qualité am na fa bu baax Cheikh Abdoul Ahad dana dem ba foofa jëndi ko sonn ci lool indi ko ci dëkk bu sell bi di tuubaa ngir bégal askan wi bégal ay clients am. boobaak léegi nag seen ak liggéey ñi ngi koy wéyal tapis rouge Sénégal ba léegi nag wàllum qualité itam tax na askan wi tàmm ko lool ba tax na ñi am yaakaar seen place bi nga xam ne ubbi nañu ko bees muy ñaareelu place bi ci dëkk bu sell bii di Touba askan wi ku nekk mën cee gën a gis sa bopp. ñuy ñaan clients yi nañu gën ñëw découvrir macha allah lu taaru lii nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad daf kuy liggéeyal Serigne Touba yaakaar naa tànk kanam rek nga am amoo tànk donc c'est ça ñi ngi xaar yi à bras di leen wax ni que ni y a des possibilités vraiment énormes au niveau de Tapis Rouge min ba'di ma haddaba bi taxali wa jarrani fihi ila al-ulumi wal fawzi bil ma'lumi